الله عليه وسلم نبيا ورسولا أستغفر الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله أستغفر الله حتى يرضى أستغفر الله في المساء أستغفر الله في الصباح نستغفر الله بالليل ونستغفر الله بالنهار ونستغفر الله في الحركات ونستغفر الله في السكنات ونستغفره ونتوب إليه اللهم إنا نستغفر استغفار الأنبياء والمرسلين ونتوب إليك توبة الملائكة المقربين فهب لنا إنابة المخبتين وعوبة الصالحين ونحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اختفى آثارهم أبدا إلى يوم الدين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا بقي تتخواي بي موي وقت بسل تبرب بي موي برب بسل دنيو يكتي أي كدو جغلو di jéggalu suñu borom jël jëlaat ndax ay jaam lañ te kullu bani aadama xataa nit yàllaa ko bindee toujours rek muy am ay defo toujours rek muy def ay bakkaar kon ñu ngi ñaan ci taxawaay bii ci bérébam bii nga xamante ne moom rek moo moom ci béréb bii nga xamante ne moom ci boppam def koy teewee wa shahidin wa mashhudin malaayka yi téewe ko jullit yi téewe ko ñu ngi koy jëggal yow yàlla nga jéggal ñu suñuy bakkaar jéggal ñu suñuy ñaawteef yàlla nga yënkewal ñu njub te wàcceel ñu xiiwal wàcceel ñu teraanga di koy sant nag moom yàlla ci lu ne ndax lu mu def rek noonu la même jaam bi sax jamono yam koy moy moo borom bi tabaraka wa taala mu ngi koy woo ne ko kul yaa ibaadi waxal samay jàpp xasul yeddul daf ko ne rek alladina asrafu ala anfusihim laa taqnatu min rahmatillah li ma amee ci yërmande pour yow la ñëwal loo boo ñëwee rek loo fi fekk rek pour yow la te yërmande rek laa am kon borom bi tabaraka wa ñu ngi koy sant ci mboolem ay xibalam ci taxawaay bi nag ñuy fesal ci lu jóge ci biir xol làmmiñ di koy fesal ne moom rek mooy borom moom rek moo yeeyoo itam jaamu jàlle jalaal man na neex waaye yàlla ci moom lañ koy delloo mën na metti itam waaye dañ koy delloo ci moom lu xew rek jàmbi na ko delloo moom ndax borom bi tabaraka wa du juum lépp lu mu def rek noonu la di séedeet ni ku mu yónni mooy seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndawam la mu yónni ko bépp yoon bu ñu mën a jaar pour yegg ci xéewal ak yàlla rëddal nañu ko bépp mbir moo xamante ne dana fàtt yoon bay jëme ca mer ak yàlla moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nañu ko yalla yalla wacce ci mom yiw yalla yalla wacce ci mom teraanga yalla yalla wacce wàcce ci moom jàmm boole ñu ci njabota ndax lu mu am ko njabootam la bokk yi tay nak dañuy wat ci alquranul karim muy joxe ordre mu ne abdullah ordre la na ngeen jaamu seen borom maanaam dig digle la jaamu leen seen borom abdullah kon amuleen leneen lu dul jaamu ko ndigal la moo tax boo xëyee moom ngay njëkk a def fajar balaa ngay tëdd moom ngay mujjee def mooy géwe mu doon lu am solo yonent bi nee na fexeel boo jullee gée rek fatu fekkere moo ci nekk moom borom bi tabaraka wa teg ci beneen ordre mu ne wala tushriku bihi shay'an bu leen ko boole bokkaale ak lenn wa bil waalidayni ihsaana ñetteelu ordre bi mu ne seeni way jur na ngeen jëflanteeg ñoom ci rafet na waxlanteeg ñoom ci rafet na doxlanteeg ñoom ci rafet na ñu ne ko waaw léegoo nekk mu faatu dem ci bàmmeel naka lay def mu ne nga rafetal gannaawam nga rafetal ay relation ñamu bokkaloon mooy say bàyyi tex ña mu bokkaloon mooy say bàjjen képp ku takk ci moom même bu dee xarit la sax nga di koy rafetal mu mel ni dangay rafetal jëmee ko ci sa ci sa way jur ñeenteelu ordre wa bisil qurba say jege ñaale say bokk di nga bokkal sant moo xam ci wàllu nijaay la moo xam ci wàllu baay la nee na na nga rafetal beneen ordre ba wal jirim yi ñi amul doole wal masaakiin na leen jàppale nanga rafetal ci me ci seen kaw maalu shahid nag mooy biir di ñëw wal jaari zil qurba dëkkandoor bi nga xamante ne sa mbokk la wal jaaril junubi ak dëkkandoor bi nga xamante ne da ngeen jégalante kër wala néeg jaaridul qurba moom la njëkk a tudd boo xoolee aaya bi ba aaya bi jeex bii la tudd répété ko ñaari yoon ci aaya bi mooy dëkkandoo cohabitation war koo rafetal ki nga xamante ne yéen a bokk benn sant nekk ci kër gi ki nga xamante ne yéen ñaaray sëy ci benn kër gi mooy wujj yi ki nga xamante ne yéen ñaar yenn a bokk ci wàllu yaay ngeen nekk ci kër bi mooy xurba mu ne na rafet wal jaaril bi boo génnee ñi nga xamante ne bokkulook ñoom sant nga xamante ne dañ laa jege rek ana yow ana man bu boobaa itam mu ne na rafet bu ne sama mbokk la mu rafet kii du sama mbokk ma ñaawal comme dëkkandoor la rekk yàlla nee na rafet ordu la nag ndigal la te ndigal buñ la ko waxee mooy mu neex la nga def mu ñàkk laa neex nga def kon sa dëkkandoor yàlla wax ne na rafet kon na ko rafet wa saahibi bil janbi ki nga àndal bokk ak moom oto ngeen bokk avion bi dugg ci aéroport bi ngeen dugg ci terre bi yooyu yëpp ay dëkkandoor même bu ngeen bokkee saret sax walla sax mu porté la sax ci cak-cak yi jakartaay dëkkandoor la mi ba ngeen di yegg na rafet bul jël sa loxo dugal ci poosam bul yëkkati kaddu bu ñaaw wax ko bul yëndu ayibam bu ko sabote bu ko ree bu ko tuuti yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lii la ñu indi wa ibni sabili doxandem gan gan mu ne bàyyi ko xel nga toppatoo ko nga dalal ko dalal xelam jubal ko won ko yoon bi ne fii la du fii nii lañ koy defee duñ ko defee nii ñu ne gan li ci gën a néew bu yegsee ubbil ko sa xar kanam boo paree won ko jox ko ndox boo paree won ko wanag bi boo paree won ko penku bi jeexagul na yii il faut nga def ko premièrement il faut rek nga defagum yii ni gan yii moo ko moom danga ko ko war a jox wa malakat ay man yi ngeen ame ci seen kër gi sax même jur yi mu ne na rafet jur yi na rafet ndax dañu am dëkkandoo li ngay ame sa néeg ci espace bi noonu la yeneen bindaafoonu yàlla di ñëw am fa néeg ci espace boobule mën na doon mbaam bi mën na doon nag bi mën na doon fas bi mën na doon xaj bi man la doon muus bi yooyu yëpp lu dul yent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne ay saasaay lañ ni ki unku yi ni ki janax yi ni max yi yooyu ay dëkkandoor yu bon lañu yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne man nga leen a rey wala man nga leen a dàq lu dul loolu rek fexel mu rafet même ganaar yi nga dëkkal ci biir kër gi sa na nga leen bàyyi xel mu teg ci nag ne inna allaha la yuhibbu man kaana muxtaalan faxuura ne nit ku bari tiitar yéeg boppam ndax ku rëy koo xamante ne dafa arrogant koo xamante ne dafa dafa dafa dem ba yëg boppam boromam dafay tuutil nit dëkkandoor mu tuutil mbokk mu tuutil bàyyi mu tuutil yaay mu tuutil gis nga kiy tuutil yaayam kuy tuutil yaayam lépp luñ la tudd ci moom mbon rek weesu na ko kii tuutil bàyyi lépp luñ la tudd ci moom mbon rek mën na ko wees bokk ki koy foyee di koy tuutil lépp luñ la wax ci mbon rek mën na ko dëkkandoor ba ñi nga xamante ne ñoom nga dëkkal ci biir kër gi kon rëy il faut nga génnee ko ci yow fekk rëy mu ngi ci yow rekk sa way jur Mangaku nga ko tuuti say bokk man nga leen a tuuti say dëkkandoor man nga leen a tuuti ki nga àndal sax ci waruwaay bi sax man nga ko tuuti waxatuma nag jirim ak ki pauvre ak ki nga xamante ne gan la te ñii yépp dañ leen war a da nga war a sa bopp ñii da nga war servir jëme maanaam ñii yow seenu mbindaan nga sa bàyyi ak sa yoon sa mbokk dëkkandoor mbindaanam nga sa wujju bi mbindaanam nga yataama masaakin ñooñu mu tudd ñépp boo dajeek ñoom xamal ne danga war a jef servir leen mu rafet waroo xaar ñoom ñu servir la ñii yàlla tudd fi boo dajeek ñoom waroo xaar ñoom ñu jox la teraanga yaa war a préparer yëkkati teraanga defal leen ñii yàlla tudd fi jalla jalla moo tax mu tudd kalimatu faxuur nit ku rëy nit bu arrogant rek yii du leen faale pour mu tuuti leen rek dafa yomb ci moom waaye nit bu amee modeste dafa yomb ci moom pour mu appliquer yi nga xamante ne moom la yàlla wax te fii la nit di yi nit moo tax ñu ne nite aaya bii moo dajale li ñu tuddee nite ñu yaay ju baax ja aïchata radiallahu taala anha mu ne jële naa ko ci làmmiñ yonente bi mu ne jibril saay suñu daje woon balaa ñuy tekkale ko rek dina ma wax ne bàyyil xel ki ngay cohabiter sa dëkkandoo bàyyi ci xel te yaakaaroon naa ne sax dina ñëw ne ma aaya bi yàllaa ko wax nee na dëkkandoor bu faatoo dëkkandoor bi lii la ci war a am boroom xam-xamu fassiri yi ne pourtant loolu mujj naa am parce que bi yàlla di wax ci miraas dafa ne wa ida xadara al qismata ulil qurba jege ñaale yi ñenn ñi firee ko cohabitat ñenn ñi firee ko ci deret mu ne saay suñu téeree ba ngeen di séddale miraas bi ndono bi mu ne na ngeen yëkkati jox kon kooku yàlla sedd na ko moom moo tax ñu ne yàlla mujj na koo sedd moom dëkkandoor dëkkandoor nag ba ko suñu yaay ja laajee bi kan mooy dëkkandoor mu ne ko ñeent fukki kër say dëkkandoor lañ ñeent fukki kër ci sa càmmoñ say dëkkandoor lañ penku ñeent fukk sow ñeent fukk kon mooy dëkk bi yëpp dëkk bi yëpp say dëkkandoor lañ ndax kër dëkk bu mat quarante kër ci ndeyjoor ci càmmoñ ci penku ci sow kooku dëkk kon dëkk bi yëpp say dëkkandoor lañ moo ñu tuddee ko dëkk kon dëkk bi yépp nañ leen bàyyi xel nga war a fexe nag ba doo yenu seen àq lan mooy àq dëkkandoo alayhi salaatu wasalaam tënkal na ko mu ne xaqul muslimi alal muslim sittun juróom benn yi la juróom benn la ñu ne ko maa hunna yaa rasulallah juróom benn yooyu mooy yan mu ne ida laqiitahu boo dajeeg moom fa sallima alayhi di koy nuyu kon meroo xejul sa diggante ak sa dëkkandoo sa wujju bi nga nekkal ci kër gi sa mag wala sa rak wala sa nijaay sa jarba bi nga nekkal ci kër gi nga mere ko romb ko te nuyuwuloo ko ordre bi yàlla jox yaa ngi koy bàyyi te bu dee yàlla joxe na ordre boo ko appliqué wul am na sañ-sañu mbugal la la mu njëkk a def mooy kaste sa warsag loolu lay njëkk a def moo tax yeneen bi boo buggee sa warsag yaatu del jox ko bokk moo tax yàlla bu lay sanctionné ci ordre yi ma la jox bu boobaa la muy njëkk a def mooy tëj sa warsak ñaareel ba wa ida daaka fa ajibhu bu la woowee wuyu ko bu la invité wuyu ko dem na sa ba ci appel téléphonique am ku lay woow rek nga jël téléphone bi rek teg ko fee te man koo wuyu moom doon nag ci ngànt nekk ku nekk ci wanag walla ku nekk ci lu jàmp waaye di sàngam def may appel nga gis appel bi di koy rejeté erreur la de ku yëkkati téléphone am woo la wuyul ngeen wax la ngeen di wax même bu dee sa da ngeen di jokkante ay baat bi rafetoo def ko waaye fa ida daaka bu la wooyee fa ajibu da ko war a wuyu ordre la de bu jóge ci yàlla bu nee nag bakkaar la lay doyee ci téléphone ba kon daw bakkaar wareef la bu boobaa nag nga daw bàkkaar ba boo woo wuyoo mu commencé di wax yooyu mën nga coupé parce que bu boobaa nag yàllaa la tere nag ngay xuus ci bàkkaar wa ida saxaka bu ñëwee ci yow di lay laaj xalaat fan saxu wax ko dëgg bi li nga xamante ne bu doon yow moom ngay def wax ko ne ko defee nii waaye bu ko piégé def loo ko loo xamante ne bu doon yow doo ko defee noonu am naa problème yaayam mu ñëw nga di koy gën a soññ ci njubadeem mook baayam nga di koy gën a soññ ci njubadeem waroo ko def da ko wax ne ko teggil sa tànk mook jëkkëram da ko teggil sa tànk waaye bu ñëw rek nga di koy gën xam bu ko nangu boo ko nangu da ñàkk fayda en tant que sa dëkkandoor del fexe bu la laajee xalaat nga wax ko dëgg bi nga jox ko xalaat bu rafet bi wa ida atish yonte bi ne na même bu tisoonee fa hamidallah ci condition mu sant yàlla mu ne fa sàmmituhu ñaanal ko ne ko yarhamukallah tisooli rek xoolal ki tisooli yow ci sa bopp nga solidarité ak moom ci tisooli ba ndax tisooli accident la buy xew ci hormones yi nekk ci yaramu nit yi dañu wax ne tisooli boo gis nit mën na ciy dee tisooli boo gis nit mën na ciy dee du ngeen di dégg kuy crise jàq ci saasi rek fa mu toog rek la daanu dee dafa am yu daje te warul daje gis nga tisoolu boo gis na accident la bu boromam mucc ndax yaram bi dafa am yu daje te waruñoo na daje moo tax yonente bi ne na bu la dalee neel alhamdulillah comme deewuloo ci moo tax réaction bu il faut nga am ko ci sa dëkkandool wala ci sa bopp mooy bu tisoolee nga ne ko yar yarhamukallah bu dee ne dangay ngay moom ci tuuti lu tuuti loolu kon boo amee dëj mu am dëj sa dëkkandoo nga ne yow da ngay céetale sa yoon nekku ci lal say baas di tëgg di fecc di wane sa mbegte te mu ngi nii ci sa wet dëj la am ana la yàlla wax mu rafet danga war a rafetal nga solidarité ak moom kon saay soo ko gisee ci naqar ci metti na rek solidarité ak moom ndax li gën a tuuti loolu te mooy tisooli rek mu ne ànd kook moom nga jàppale ko won ko ne ko maa ngi ànd ak yow wa ida marida bu feebaree fa odu demal nga seeti ko obligatoire boo mënta dem nga yebal fa won ko ne ko lii la dal yéene naa la nga jóg ci ci wér wa ida maata bu demee ba faatu fat baaxu toppal néew ba jaale ay bokkam yii sa dëkkandoor moko mom ci yow waye mu faatu nga kontaan ci dee yene ko de bu niko ni ko yonte bi waxe ni ko alquran waxe ni ko shariatu waxe ni ko l'islam waxe neena bu faatoo sax jogal nga and ak mom léegi yow nga faat bakkanam na en tant que dekkando sa moromu dekkando ndax lolu ñuy sahibi bi jambi bi dem na be ci ki nga xamantene da ngay xeye ci quartier bi mu xeye ci quartier ge wala ci dekk bi ngeen dajje ci entreprise ci usine bi ci école bi fu ngeen man di daje di fay liggéey comme ñi nga xamante ne dañ leen embauché ñuy liggéey ci benn société ñu dëkkandoor lañ heure boobu noonu la ko dalee ci suba ba ba ñuy wàcc kon war nga fexe yii mu la wax nga sàmmwan ko sa diggante ak kooku moo tax mu ne wa ida maata bu faatoo te mooy musiba bi gën a rëy ci nit biy dal nit fa oduhu wala fat baaxu topp ko topal néew ba woné sa solidarité woné ne man bu doon man rek bu boba mom du dem ndax li tax ngay gungé gan moy sopp bang ko sopp kon li tax ngay gungé ki faatu moy bugu bang ko bugg li la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal kon dekkando lu jara baye xel yalla yalla yàlla may ñu dëkkoo bu rafet اللهم taqwa fa تقواها fa anta khairu man اللهم لا رد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 لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أسقنا غيظا مغيظا مريئا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أسقنا غيظا مغيظا مريئا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أسقنا غيظا مغيظا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم صل على سيدنا محمد الحمد لله ونستغفره ونتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد كون لولو ني تودي ديكو كوابيتاسيون نيت داف تي ورا باي خيل ناخ سوفي مومنو يالا لا جيل لا يو بيل لا واتي لا ني اوكيبيل اسباس بي جيل سا موروم واتيه كو ci beneen espace ne ko yow occupeel fii kenn ku ci nekk ci yéen ñaar nag mu jox la ordre yi passé kenn ku ci nekk xam nga wax naa la ne bul xaar ñu defal la yow yaa war a def kon sa dëkkandoo du la ji lu ñaaw nga delloo ko lu ñaaw moom bu bàyyee la ko yàlla digal ordre ba yow bul bàyyi yow la la yàlla diggal te mooy ordre ba alquran ne wala yajrimannakum shana'aanu qawmin ala an la ta'dilu yàlla bi mu leen waxee ne na na ngeen defee nii sa moroomam bu defeewul noonu yow defee noonu li la yàlla wax waaye di feyeeku wante vengeance baaxul ndax yàlla def ko tere yii ñii yàlla tudd amuloo droit di venger wu ci ñoom di feyeeku defante te am na ñoo xam dañu bugg defante bés boo leen defee rek ñu ne cokkaas na sawar nañu guddeeg bëccëg pour fay la lu ñaaw boo waxee mu ne yaa ma ko njëkk a def te taa yàlla def ko jox ordre moom jox la yow ordre moom bu deful ordre ba yow defal sa ordre gis nga moom bu deful ordre digganteem ak yàlla la moo koy sanctionné waaye yow boo defee sa ordre yàllaa lay fay. boo ko defulee ni ko yàlla def sanctionné ko noonu la lay def sanctionné moo tax ngay ñëw fekk kër goo xamante ne jàmm amu fa parce que yàlla dafa seppi loxoom mu ngi mbugal kii di mbugal kii boole leen ñoom ñaar rek ñuy mbugalante kër ga du mën a neex ci dëkk dëkk ba du mën a neex waaye kii bu sàmmwante kii sàmmwante ak li yàlla wax ordre bi nga gis kër gi neex dëkk bi neex yal na yàlla defal façon dëkk yooyu motax il faut nga bayyi xel sa dekkandor ndax bes boko ñaké fo jëm sa kër buy tak kuy ñëk intervenir sa kër sacc bi nga xamantene mo dugg ci sa kër ndax nekko fa mu ngi yëndu déssé ndax sa dekkandor ba nga fa bu fa nekké du ñëmé def sa njabot bo génné bàyyi leen ci gannaaw sa dekkandor mo leen di teg bot di lay xol lu bu nga yaq mu defar bés boo demee ba génn ci àdduna sa ki koy njëkk a yëg kan la dëkkandoo kuy njëkk dugg si dëkkandoo kon musiba bu la dalee koy njëkk gis moom banneex bu la dalee koy njëkk a gis moom ki nga xamante ne nag boo xippee rek jàkkaarloog moom booy dem bay tëdd moom ngay mujjee gis war nga ko bàyyi xel nga téye ko comme sa bopp ni nga téye sa njaboot nga téye noonu njaboot ni nga téye sa kër nga téye noonu këram li nga bëggul ci sa njaboot bu ko jëm ci njabootam li nga bëggul sa kër bu ko jëm ci këram lii mooy li nga xamante ne moom lañu lislaam jàngal mu wóor la nag ne heure bi ngay rafetal sa dëkkandoor yow defaruloo ko sa bopp ngay defar yow xam nga da gis ko xam ne daf lay wax naa ne ma di lay arranger ngay di déranger ngay yàq boobu bu bu ko wax parce que defaruloo kenn sa bopp ngay defar yow heure bi nga xamante ne yaa ngiy rafetal sa diggante ak kii nga xamante ne moom la la yàlla tuddal heure boobu na la wóor ne defaloo ko dara sa bopp nga koy defal moo tax alayhi salaatu wasalaam mu ne kenn ci yéen du dugg aljanna lu dul ne dafa doon jullit nee na du ngeen dugg aljanna mukk lan tadxulul jannata xatta tu'minu aljanna doo fa dugg lu dul ne da yàlla te gis nga sa dëkkandoor bi boo ne laa ilaha illallah naafiqi wax nañu ko du mandargaay jullit waaye sa dëkkandoor mooy wane ne yow jullit nga moo tax mu ne la jaaru ko anwaanu sa dëkkandoor moom mooy yow jullit nga alayhi salaatu wasalaam ci xadis mu ne man kaana yuminu billah wal yawmi al fal yukrim jaarahu ci yéen képp koo xam wuyoo na ne jullit la te gëm na ne bés penc dina mas a taxaw nee na na digganteem ak dëkkandoor xoolal baat bi yonent bi utilisé fal yukrim na teral na màggal kon dangay ngay màggal sa dëkkandoor sa dëkkandoor doo ko xeeb sa dëkkandoor doo ko wàññi sa dëkkandoor doo ko tuuti ci mboolem dëkkandoor yi mu tudd nag ki ngeen dajal ci société bi bu ko di wàññi pour jël place sa wujju bi bu ko di tuutil pour gën a foor ci sa jëkkër bu ko jël sa mbokk bi ngeen dekkal ci kër gi nga ne dama ko bugg a ci kaw bul jéem yakal ko ci kaddu wala ci jëf pour féete yent bi neen fal yukrim na ko màggal te gi kaddu moo ci gën a ci lu nekk rek màggal kon ki nga xamante ne daf la bugg a màggal du jéem pour tuutil la moo tax mu ne fan yukrim day faw kon ku gëm yàlla dafay màggal ganam da dafay màggal dëkkandooram fal yukrim jaaraam man kaana ku gëm yàlla fal yukrim jaaraam nay teral dëkkandooram nay màggal dëkkandooram kon képp koo gis muy tuutil di tooñ di lor dëkkandooram buñ la waxee ne jullit la ne ko am naa ci ñaari xel ci beneen xadis mu ne wallahi laa yumin waat ko de wallahi laa yumin ba muy ñetti yoon saxaaba yi kenn ku ci nekk jóg toogaat man yaa rasulallah kan ngay waatal ne du jullit ba muy ñetti yoon mu ne alladi laa yamanu jaaruhu bawaayiqa ki nga xamante ne dëkkandooram du mucc ci ayam ayu làmmeñ ayu jëf yooyu kep képp ku koy def di jéem di tour di fexe di soti lu nek ngay def pour sa dekkandoor bi mën a féete ci gannaaw yo nga dem ci kanam yonente bi nee na du jullit te daf ko wat nak te yonente bi nag du caaxaan ci waat parce que xamna na ne waat dafay sank yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne al yaminul kaadiba taqa'u diyaaral al nee na waat bu dul dégg mën naa toj kër kon dafay sànq kon yonent bu waatee ñetti yoon mooy caaxaan ñàkku fa mu nekkoon kii du jullit kon boo bëggee doon jullit sa diggante ak sa dëkkandoor na ko rafetal te di koy màggal muy benn jaaruka fat fadli pour nga doon dara ki dara ci yàlla ak ci nit ñi sa dëkkandoor moo la koy yóbbee day dëgg ñu ne garab nit nit mooy garaba mooy mooy moo koy yokk moo koy faj moo koy defar comme garab kon yow li ngay peese ci yàlla fadlu bu la waxee fadlu rek mooy li nit ki rawee keneen parce que fadlu ci luga moom mooy ndesit maanaam boo nattee ñaar benn bi upp benn bi la ko uppee loolu la ñu tuddee fadlu kon nit ki li muy génnee nit nit ki li muy tanee ci réew mi li muy tanee ca yàlla ci dëkkandooram يجلك عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني نتب خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره ينتبه لنا كي جم كي أندي من موي كي نخم أنت نبمو أندي كمو أندل تاني نكو تيجا بالك تيجا كتبني من كي جن تيجا كنوري moy ki nga xamantene ne génn ci dëkkandooram kon waxul kay julli waxul kay wor waxul kay jang alquran yoy yeb baxna waye mu ne li nga mel ci sa dëkkandoor nonu ngay genné ci man yalla nonu ngay genné itam ci bir société bi waye bu deene yow mano fété sa dëkkandoor fenn lu ci lor fo tok ñu ne ko togal ñu ne diw fit bi naaw parce que xam ne wax ci mom lu rafet bu joxee gannaaw alalam ana diw mu ngay dugg ci néeg ba mu daw ani sama caabi dem tëj parce que wóoluwuloo sa dëkkandoo dana am ñaari jigéen ñu nekk ci biir kër gi di nga gis kenn ki ñemewul génn bàyyi noonu néegam parce que morom bi ñeme na capable dugg ci néegam def fa musib lu ne ñeme na waañam sa ñemewul bàyyi noonu est-ce que dëkkandoo war na mel noonu war nga fexe ba sa dëkkandoo am xel mu dal ci yow ba su joxee gannaaw rek mu wóor ko ne ko yow yaa ngi koy sàmm bu doon yow ni nga buggulee loraange dugg ci sa mbir noonu nga koy defee bu fekkee ne sa moroom la kon jigéen yi nañ ci bàyyi xel bokk yi nañ ci bàyyi xel xarit yi nañ ci bàyyi xel ñi nekk ci biir dëkk bi nañ ci bàyyi xel kenn ku ci nekk jaaruka miftaxuka ilal janna aw ilal naar kon ndikite yemul fi sa dëkkandoor mu ne moo lay ubbil buntuy aljanna nga dox ndànk dugg ci biir aljanna waaye sa dëkkandoor moo lay ubbil buntu safara ba maax la ca nga dugg yàlla nañ ci yàlla musa dëkkandoor lan moo tax nekkul ne dafa am pouvoir dugal la aljanna wala dugal la safara waaye yàlla ko ko jox ki nga xamante ne nag moom la yàlla jaaral lii ci loxoom war nga ko bàyyi xel tey jii moo téye karawaas bi lu ko ci neex mu def tey jii moo téye kopparfoor bi lu ci neex lu ci neex mu def boromam war nga ko ci bàyyi xel lu tax jabar di bàyyi xel jëkkëram parce que ay soxlaam foofu lay faj kon yàlla dafa jël sa dëkkandoor mën na laa ubbil buntu aljanna waaye it mën na laa bamax nga dugg safara ku mel noonu nag ci yow war nga ko moytu bàyyi ko xel du ragal ko moom dafa am ñoo xam ne dañu wax naan dañu jaay fit dañoo xam ne maa ko maa maa la gën a tàng xol maa la gën a metti di defante ak sa dëkkandoo déedéet ragalal yàlla ci moom parce que yàllaa ko may droit bi yéen ñaari côté yépp nag moo tax ñaari dëkkandoo ku ci nekk dafa war a bàyyi lii xel di moytu sa moroom di rafetal jëmee sa morom alayhi salaatu wasalaam toog na ñu ne ko yaa rasulallah yooyu yonente yàlla inna fulanatan maanaam diw sàngam ku jigéen la nag parce que góor ñi li gën a bari bu ñu xëyee dem ci liggéey waaye jigéen ñi li ci gën a bari toujours ñu ngi ci kër yi ñoom ñooy gën a gérer kër yi dëkkandoo ñoom ñooy dëkkandoo ñoomu kese mu ne inna fulanatan ku jigéen la يذكر من كثرة صلاتها برينا لمي جولي وصدقاتها برينا لمي جن سرخ وصيامها برينا لمي و لي واخ يانت باخنا نك غير انها تؤذي جيرانها بلسانها من واي لامين بي لامين بي سبحان الله درجه نكو نيو بو واخه نيب تافل گمي بو واخه رك نوبو ييب فوغلو parce que dafa sañ wax ñemee wax lu rëy ba ñu waxee loolu yonent bi kaala yonent bi ne na hiya ndaw soosu noonu mu ngay julli de mu ngay woor de mu ngay saraxe de waaye fi naari mu ci biir sax kon kan ma ko fa dugal du yàlla dëkkandooram ba muy lor di wax ci moom lu ñaaw di jëf lu ñaaw jëmee ko loolu moo ko yóbbee safar kon sa dëkkandoor moytu ko xaala kii nettali wax ne yaa rasulallah ñu waxaat ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam yow mi yàlla yónni nga xam fi ñu war a jaar inna fulaanatan diw sangam ba léegi jigéen la yuzkaru min qillati siyaamiha koor moom xanaa weeru koor wa sadakatiha sarax moom bariwu ci wa salaatiha ay naafila yi guddi yi bariwu ci wa innaha لا لتتصدق بالاسوء من الإقتة بمعنى لما يسرحه أي خيط فورمال لا معنى يجينا سوفي يوي لا يسرح وعينك ولا تؤذي جيرانها بلسانها لمنيم du ci lër dëkkandooram du wax mu ñaaw du jëf mu ñaaw jëma ko ci dëkkandooram kala yonan bi bine na hiya julen bariwul de kooram bariwul de saraxam bariwul de waye fil janna mang ca bir aljan kon ndaw si itam kan moko dugal aljanna kan moko dugal jugal aljanna dëkkandooram moo motax dekkando ni war ko baye xel bu fekke ne mom la yalla jox sa aljanna mu man la faa dugal man pus pousse ba dugu la nga dugu safara koku war nga ko moytu lo am ci moytu def ko moo tax il faut que rek nga bàyyi xel sa diggante ak say dëkkandoo alayhi salaatu wa salaam pour tëj ko rek sallallahu alayhi wa sallam toog na ñuy tudd lu ñaaw li di tudd lu ñaaw li ba yegsi ci njaal bañ ko waxee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nee na ak a ñaaw ak a jagati ci yàlla d'accordu ci rafetul ci biir rafetul ci biti te du mas a rafet nag te du mas a jag nag ba àdduna di tukki ñu ne ko yaa rasulallah kon loolu rëy na de mu ne kaay leen ma wax leen lu gën a rëy loolu mu ne sa dëkkandoor nga dem ci këram def fa njaaloo sa dëkkandoor antarnie bi xalilati jaari xalilati jaar doomam ci la bokk jabaram ci la bokk yàlla ci yàlla musal jaar naka noonu ay ñu koy liggéeyal ay mbindaanam xale yi mu yàq dem ci kër jàmbur sa dëkkandoor nga def fa njaaloo yonente bi nee na boobu moo gën a garawati sallallahu alayhi wa mu ne gis nga boo demee kër sa dëkkandoor def fa njaalo xam nga noonu lay bindalee bakkaar dafa mel ni nga def ko beneen kër bu dul sa dëkkandoor fukki yoon maanaam dëkk bi daal nga def fi njaaloo nga dem beneen dëkk dafa njaaloo fukki yoon nee na moo ge moo tane nga dem ci sa dëkkandoor ci dëkk bi dafa njaaloo oh li moo tax dëkkandoor ñu war ko bàyyi xel te alayhi salaatu wasalaam nee na képp koo xamante ne jaar na ci jabaru jàmbur bu yomal qiyaamati jote yàlla dafay taxawalal jëkkëram ne ko jëfam yu baax yaa ngi nii ajam nga jàng alquranam kooram nga lu baaxam yëpp yaa ngi nii lu la ci neex defal waaw bu ko nangoo yëpp nag foo jëm moo tax sa dëkkandoo bés boo defee ñaaw tef ci këram wala ci néegam xamal ne tayle nga sa bopp ndax àdduna yemul fii bés a ngi ñëw yowmal qiyaamati ñu tuddaat ba yegg ci sàcc yonente bi sallallahu alayhi wa ne ak a yées sàcc ak a bon sàcc d'accorduma ci yàlla d'accordu ci rafetul ci biir rafetul ci biti te du ma sa rafet te dara du ko mën a rafetal ba àdduna di tukki sàcc ñu ne ko kon sàcc yées na de xam nga li gën a yées ci sàcc mooy tu ngay tuumaal waa kër gi yëpp loolu lan moo ko gën a rëy ci bàkkaar maanaam yow mi ñu sàcc kër gi yëpp nga tuumal sa baay bu fa nekkee sa boo moytul nga ne est du baal am nooy waxee ak moom rek saa si boo moytul mu yëg ne kon est nekkul ne moom ngay tuumal loolu moo gën a yées ci sàcc moo tax yonente bi nee na du masa rafet ba àdduna di tukki saxaaba yi ne kon loolu yées na de sàcc ak ay yées yonente bi ne kaay leen ma wax leen lu gën a rëy sàcc ci bopp sàcc boobu la nee na nga dem ci sa këru dëkkandoor sàcc fa sa dëkkandoor nga dem ci këram nga sàcc fa jël alalam moo xam dalasi la moo xam dërëm la moo xam oro la moo xam paakaam la moo xam boolam la moo xam dàllam la moo xam yéreem la lépp lu walla téléphone am li xew ci jamono nga dugg ci këram rocci téléphone ba sàcc ko lépp loo sàcc ci sa kër dëkkandoor mooy dëkk bi daal boo fi sàccee yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne boromam danañ ko bindal bakkaar bu tolloog bu demoon beneen dëkk sàcc fa ba fukk yoon maanaam boo génnee dëkk bi dem ci beneen dëkk sàcc fa dañ la bindal bakkaar te yonent bi nee na bakkaar ba xam nga naka la tolloo moo ñu dagg loxo nañu jël loxo ba dagg ko loolu la bakkaar ba tolloo fii ci àdduna kon sàcc dara gën ko yëf du dem ba ñuy mën a dagg loxoy jàmbur ngir loolu mu ne nag nga dem dëkk beneen dëkk sàcc fa demaat sàccaat demaat sàccaat ba muy fukki yoon nee na moo gën a oyof nga dem ci sa dëkkandoor dem dugg ci këram sàcc fa jël fa alalam nee na moo gën a yées kon jigéen ñi bàyyi leen ci xel góor ñi bàyyi lañ ci xel sallallahu alayhi wa sallam la ko jàngale kon cohabitation walla dëkkandoor nañ koy rafetal nañ koy jagal nañ koy baaxal sallallahu alayhi wa ne boobu ñu laaj ko lan moo gën a rëy ci bakkaar yi mu ne bakkaar bi gën a rëy ci yàlla mooy nga bokkaale an tajaala lillahi niddan wa wa xalak moo gën a rëy ci bakkaar yi mooy lan ngay jaamu keneen ku yàlla di ko koy bokkaale ñaareel ba mu ne nga jël sa doom rey ko jël sa doom rey ko bi maanaam faat sa doom danay am yàlla ci yàlla musal ñu ne ko teg ci ban moo gën a rëy ci bakkaar yi ca yàlla mu ne an tasniya bi xalilati jaarik dugg sa kër dëkkandoo def fa musiba ci njabootam bu jigéen yàlla yàlla musal jaam ci aar allahumma atina husna taqwaha zakkiha fa anta xayru man zakkaha allahumma inna la nasaluka raddal kada wa nasaluka lutfi rabbana yaxfir lana dunubana wa israfana fi amrina وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نستغفرك استغفار الأنبياء والمرسلين ونتوب إليك توبة الملائكة المقربين وهب لنا إنابة المخبتين وأوبة الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى غيرك طرفة عين يا أرحم الراحمين اللهم أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم أسقنا غيظا مغيظا مريئا مريعا نافعا غير داع عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أسقنا غيظا مغيظا مريئا مريعا نافعا غير داع عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أسقنا غيظا مغيظا مريئا مريعا نافعا غير داع ajalan ghaira haji bi rahimin la ilaha illallah adada ma kan la ilaha illallah adada ma yaqul la ilaha illallah adada al harakat la ilaha illallah adada rasulullah sallallahu alaihi wasallam Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah,